Assalamualaikum, maa ngi di nuyu euh, je tenais à ce que ma live bi nii li tax ñu jël décision def ko comme ni ko intitulé ci turu live bi légitime défense la ndax am na koo peut-être talul di di jël di wax à chaque fois ndax bu dara sax ay jëfëm dinañ ko tontul waaye dañu nek réew mo xamné boo toogee ci seetaan ñu jaar sa kaw te wax dëgg yàlla defuñu lu ñuy jaaree suñu kaw ñun te ñàkkuñu fayda boobu noonu loolu moom moo tax depuis lors man je tenais à ce que ma def ndànk ci mbir yi ba a teel a wax ndax ak lu mën a xew euh, riposte moo dàq riposte moo dàq même en matière de combat de lutte riposte moo dàq euh, ci loolu nag moo tax ñu ne nañu def live bi d'abord dañuy expliquer situation bi ni mu demee lan moo waral coow li xew Tiwaawan mu am ak fan la jóge dafa am benn njabootu Mame Babacar Sy di njaboot ci Seydi Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al di njaboot ci sëriñ Moustapha si Al mu ñu koy woowee Baye Katim ture mu doon góor gu jàmbaare góor goo xam ne liggéeyal na lislaam lu ñu bari liggéeyulul ci réew mi góor goo xam ne liggéeyal na tariqa lu ñu bari liggéeyalul ci réew mi góor goo xam ne liggéeyal na ëttu Seydi El Hadji lu ñu bari di wuyoo ëttu Seydi El Hadji liggéeyal ci jamono bi góor goo xam ne liggéeyal na sëriñ Babacar Sy lu ay doomi Serigne Babacar si liggéeyalul ci jamono ji góor goo xam ne liggéeyal na Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy ci ñoo xam ne dañuy wuyoo doomu Seydi El Hadji Malick Sy lu ci réew mi ba ci Serigne Moustapha ak li mu ko def ba yàlla jël jël bakkanam Baykaatam Touré gaañu na avant muy dem mu demandé ni man su ma gaañoo nañ ma suul ci ëtt Serigne Moustapha ndax moom ci boppam laa dénk sama bopp ndax mag ñi moom lañ ma booleel ba mu defee loolu ñu suul ko ci kër Serigne Moustapha bi nekk Tivaouane ci entrée bi ndax Serigne Moustapha moom moo amee terrain bi depuis 1982 mi ngi titre foncier bi foofu ñi ko xam avant ñu fay defar institut wala lenn foofu place la woon pour ay mécaniciens ba léegi sax ci côté bi di nga gis ay mécaniciens yu fa nekk ba loolu xewee ñu suul ko foofu. bañ ko suulee foofu fekk am na ñu am benn propriété ci wetu propriété góor gi ba commencé di emboîter terrain wu jàmbur yéen ñëpp boo leen fàttalikoo am na benn lendemain tabaski bu sëriñ Moustapha di wax ni terrain wu sëriñ Maodo Sy bu sëñ Abdou Aziz Dabakh mi ngi commencé di laal sama terrain ba waa cadastre interpellé ma moom tamit ci rafet jortam mu ne bu ko neexee sax na jël sama terrain yaakaar ni du egg fenn fi ba loolu xewee a ah, ñu suul ko foofu ñu dem ba lan deme korité ñu xëy ñu ne ñu sulli nañ néewu baykaatim Touré lu tax ñu sulli néew bi ñu ne parce que ñoom dafa laal seen terrain ci ay wax bu dee litige foncier la li nga war a njëkk a def moy guenné ay preuves dem fa nga ko war a nga porter plainte avant sax ñuy sulli mais comme que réew mi Serigne Moustapha ça les dérange surtout le gouvernement ñu teurel sen complot dem ci préfet bi nga xamné mom mo nek ca Thiès mu joxe autorisation pour ñu sulli néewu Baye Katim Touré indi ko fi hôpital La danté au début sax média yi dañu def fausse route te lolu c'était fait à dessein ndax dañu ñëw ni une découverte macabre dans la maison de Serigne Moustapha Sy mel ni dafa am ko ñu rey dem dugg dem sool ko immédiat bokk na si ji njëkk ñu dem ba si yàgg ñu gis ni loolu du dëgg ñu rectifié wu bindaat article ba loolu xewee ñuy seetaan ñu daal di ñoom ñu def autopsie ndekete mort naturelle la c'est une première défaite Nous terrain bi ko Serigne Moustapha titre foncier à son nom depuis 1982 ñu ñu recours d'abord nous nañu nous ci bara dara di xew comme nous Serigne waxé ci Nous ko xarit bi ñu mystique. yaakaar ni mën nañu kii loolu sax duñ ci sori parce que am na yenn bases yoo xam ne man jarul ma koy tudd ñuy continuer di ci nekk li ñu gën a jaaxal ci situation bi mooy le fait nit disposé ci titre foncier xam nga sax bu dee bàyyi ñu ne c'est périodique du délibération du bàyyi tiitre foncier la titre foncier mooy yow yaa ko moom à cent pour cent naka la nit di yore titre foncier wu. ñu bëgg taxaw ci kanamam né dañuy nangu kërëm di créer ay bail yo xamné 2021 lañ ko créer après ñu ñëw taxaw ni dañu bëgg nekkal dëgg dañuy wax ay waxu famé ak affaire yoy mais li ça dépasse de loin affaire famille li injustice la injustice la injustice bi gëna mak li bokku na ci ndax nit du mom kërëm ku ci nekk ci ñun sa kër bàyyi bu ñu taxawoon diko jël ci nga rayante yow serigne Moustapha nak sori na ci ñun fu suñu bàyyi toll tollul ndax li ñu nekk lépp moom moo ñu ko def et je le dis mu leer nañ billaahi wal quraan azim jaral nañu lu ëpp suñu bàkkan ñun ndax li ñu defal ëpp na suñu bakkan ñun beneen bi mooy waxuñu loolu ñuy continuer seen complot ba tey d'abord jour ba ñuy ñëw ñu indi gendarmerie gendarmerie taal ay lacrymogène xeex ak élément sécurité ya fa nekk ba am ñuñ si jëloon bàyyi nañu leen loolu pour lan ñi nekk fii nag ñu naan ay média lañu après dinaa si ñëw sax parce que il faut que ñu ñu wane li xew ci média yi man xam naa si dara parce que journaliste la ñu naan ay média lañu ñu def suur sourde oreille ku nekk toog noppi doo wax sa nopp nangoo woo dégg nangu woo gis suñ la expliquer situation bi nga affaire de famille la juste parce que Serigne Moustapha lay dérange li ça n'a rien à voir ak affaire de famille lii c'est une affaire de dignité dignité la lii ndax dignité wu nit la ñu bëgg a la bëgg xaw yi ci benn fan te loolu nit du ko nangu ñu taxaw médias yëpp nopi le lendemain je me rappelle lendemain tam xarit man j'ai lu toutes les unes du médias yi nek fi ni amul kenn ku wax ci affaire baykaatim bi affaire terrain bi kenn waxu ci waxu 3e mandat lañ wax ñenn ñi parce que mo leen arrangé mais ku xam Serigne Moustapha xam ni xeex ak Macky Sall moo gën tuuti ci limuy def ndax la mu am soxlawul nguur billahi soxlawul nguur ñu continuer ci lolu médias yi nopi ku nek di créer sa situation ñi nek ci lenen bañu commencer di continuer ci lolu ci lolu tay ci suba gis nañ abdu abu saar xoomu ak limi wax mag du fen mag du fen fen nak bi ci gëna metti moy fenu fajar RFM matin nga xey fen RFM du ma sax RFM RFM la wax RFM matin nga xey fen fen yoyu nak amul jariñ ndax d'abord budé da nga né Serigne Moustapha Mam Cheikh Ahmed Tidiane Sy joxu ko werd du deug man Pamorlo Mor Lo na ak ijaza bu njabootu Serigne Moustapha yor bu jugé ci Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy egg ci mak ñep te koku moma jox werd donc ki la jox ijaza waxuma la ak mu jox werd bobu fen la gis ngeen vidéo bi euh, euh, sunu papa Moussa Gay def di wax fimu mu xenu fajar la benen bi moy <laughs> su da nga wax ni Serigne Moustapha xamul fan lañu sul soxna Sofiatou Dem vidéo bi Serigne Moustapha di nek ci deju soxna Sofiatou Dem mi ngi fi moom ngi koy gis ak Serigne pam malik yow fo ne xenu fajar la su da nga wax ni mam Cheikh dafa génnee Serigne Moustapha bëccëgu ndara kam mam cheikh kenn du ko wax du weddi bopam mo taxaw publiquement foire ñepp di dégg <laughs> ak bakanam nim mu mu ne bu sacrifier ma sacrifier sama bop mam cheikh du du koy we du koy weddi bopam ndax nitu yalla la deug day lèr bobu fen la ak yeneeni fen man nak dama lay poser question yow parce que duma yag ci yow parce que yow intéressé wu intéressé question bi ma lay posé mooy ba Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al di tagg Serigne Moustapha publiquement yow foo nekkoon ba Abdou juuf di di bindulu les magouilles de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Serigne Moustapha di tontu le 13 février 93 yow Abdou Si Abdou Sarr foo nekkoon fan nga nekkoon yow. ba dëju sa soxna société dem bi ngay wax yow ba fa nit ñi di dajaloo di def ki yow di suul yow foo nekkoon yow. marché wu état bi nga récupéré ci Aly Nguy Ndiaye ba muy nek ministre de l'énergie mu tollu ci 11 milliards ci sa entreprise bu ñuy tuddé Enco la nga def anamu ak xaalis ba foko duggal financement bi ngay récupéré ñu lay corrompre pour nga mëna dal ci famille Serigne Moustapha aca fo nekkoon benen bi moy sa porte plainte bi nga porte plainte mam Cheikh Ahmed Tidiane si bu Serigne Moustapha fu mujjé budé deug nga nek benen bi moy bés ba 13 février di xew ak 16 février 93 ak li attaquer Serigne Moustapha njabootu mam Cheikh yep genn muy Serigne Mansour si muy Serigne Pam malik di taxaw ñep di gis yow fo nekkoon yow kon nak yow bañuy xex yaangi yaa di nelaw nek say neex-neex duñu bayyi ba heure bi ba mam Cheikh duggu bammel ngay doog wax benen bi moy budé da nga Serigne Moustapha day chantage Serigne Moustapha loolu Serigne Mame Cheikh mais loolu ñàkk respect Serigne Cheikh la ndax Serigne Cheikh ni mu toll nit bu ko chantage nit mënu koo chantage billaahi wa quraan azim donc waxuma laa nga naan Serigne Moustapha day chantage Mame Cheikh ki nga xam ne mooy kilifam donc nit boo demee bay fen fen gi na logique fen day jub fen dafay jub waaye fen bu jubul nuy mujjé xéni fajar lay nekk balaa bëccëg ñu wéddi ko <laughs> donc nak da ngay xol sa bopp Mustafa ngay wax bala Serigne Moustapha di la tontu ñun ñolay tontu parce que ñun mëna ñoo sédé vidéo yaangi fi ñun ñëpp ku ci xam Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum Serigne Moustapha moo tax ndax moko taxaw. taxawal ko fépp xeexal ko ba mu jaral ko mu dugg kaso yow nag ba ñuy def loolu yëpp yow foo nekkoon yow yow ba ñuy def loolu yëpp yow Abdou si Abdou Sarr foo nekkoon si bi duma ko tudd ngeen baal ma ko fan nga nekkoon maam Cheikh Ahmed Tidiane si al bu muy dund ak limu daj fi yep ci rew mi ak liñu ko mën xassal fi ni ku xam mam Cheikh ku dul Serigne Moustapha amul man motax video buñ ma wan nan ma ay témoignage la ci Serigne Cheikh ngeen bal ma mais duma ko lire man bu Serigne Moustapha la gëm ndax mom mo xam mam Cheikh donc nak kuñuy kuñuy kuñuy jangal mam Cheikh amu fi bu la nexé nga wax lu la neex ne Serigne Moustapha ak mam Cheikh nañ ko mais ko dindi c'est fini vidéo yi weddi nañ la histoire weddi na la te ku histoire wedd ak feey làmmiñ mënatu koo dindi ñu avancé parce que kooku taxu ñoo jóg verdict bi nag ñu ne le 26 la le 26 la ñu fas yéenee joxe verdict du dëgg sax parce que verdict amu fa Macky Sall mi nga xam ne moom mooy def complot ndax Serigne Moustapha daf ko opposé ndax seri Moustapha ku opposé intérêt wu nit ñi ak émission bi mu opposé la du ànd ak franc bokkul ci kilifa diine yi ànd ak franc laa wax du ko def comme que da nga ko opposé nag yàq sa ministre de l'intérieur ak sa ministre de la justice ba mu jaral leen ngeen def yenn complot yi jàpp leen ni looleen def stratégie ñun am nañ ko loo leen indi ci xeex ñun am nañ ko te incha allah. le 26 bii ngeen di xam ni dëgg rek moo mën a feeñ fii nag verdict bi amul ñaari verdict benn verdict moo am benn option moo fi am mooy jox Serigne Moustapha terrain wam ñu suulaat baykaatim si jàmm senegal dellu ci jàmm su loolu amul lépp loo leen gis jàpp leen ni ñu na man li may wax ragaluma ci dërëm. Pam lola Lo laa tudd la deuk je parle à visage découvert limay wax ragaluma ko te sama xol la ko tibbee te ragaluma ci net mais il faut que ça cesse dafa am lo xamné mënul continuer parce que réew mii ku nek mën nañ ko tudd mais Serigne Moustapha limu mu liggéeyal ñun jeunesse bi ñun xam nañ ko moñu tax ñuy jang budul won ak mom duñu jang lenen moo ñu tax ñuy def lu ñu mën ngir ñu liggéeyal sunu njaboot moom moo fexe ba sunu diine duñ ko soofantal ñaata yoon loo organiser des des ay daaray ngoon yoo xam ne ay jeunesse la ci yar chaque année mu joxe ay dons ci ay hôpitaux te caméra du ko filmer ñaata mag la yar ba fi maam Cheikh to nekkee waxantuma la ak ba mu fi jugee ak yeneen ak yeneen. kon nag dafa am loo xam ne ku ñàkk fayda rekk a koy contre mais nag lu ñu bett ma fàttali leen ci histoire yonent bi sallallahu alayhi wa sallam avant muy dem Madina fa mu njëkk a dem muy Taif ay njabootu yaayam lañu et pourtant famille wu yaayam lañ et pourtant dañu ko sànni xeer avant dara di xew. famille am la njëkk a commencé ak abu jahlin abu jahlin yi ak ñoo bari sax abu jahlin yi bari nañ trop abu lahab a fi bari nañ trop abu sufiyaan avant muy tuub ay walid ibn mughira ñoom ñépp fii nag dañuy waxante dëgg weesu nañ jamono boobu nekkatuñu ci jamonoy abu lahab di def lu mu lu mu bëgg abu jahlin di def lu ko neex wala di mu reere def lu ko neex fii fii abu lahab du fi naanee ndox abu jahlin du fi naanee ndox wala di mu reere du fi naanee du fi naanee ndox te incha allah duñ ko seetaan ndax xam nga la moo tax jamono bi ali ibnu abi taalib tollee ci digg ndëndam abu bakrin toll ci Ousmane topp toll ci Omar tollu ci ci lañu xamé deug deug deug ni yonent bi di kenn du ko fowé xaré bu mu xaré gañe nako fi nak fofu lañ tollu ndax ñu fayda lepp lu ñu am dañ ko sacrifier ndax mission xoluñ ci diw xoluñ ci lenen xamuñ ci xarit xamuñ ci lenen donc nak ñu bayyi xel bu baaxa baaxa baaxa baax buguma guddal live bi ndax dafa amone lo xamne ne foog nga tontu ko surtout par rapport ak sorti Abou sar bi mu xam bopam waaw mu xam bopam ndax nit boko xexalul bu ko défendre kep ku taxaw nan la dama bëgg Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si te bis ban ba muy gëna metté yow yaangi won tok sa pokku si neubatu donc amo loy loy taggé serigne Cheikh Ahmed Tidiane si fi ki ñëmé tagg serigne Cheikh Ahmed Tidiane si moy ki nga xamné ba lepp xewé ñëpp di xex mom mo tok taxaw donc nag ñun <laughs> kooku doy na ndam démb dama ko wax am na koo xam ne défendre ko dafa yomb ndax ku nekk ci dëgg rek a yomb défendre ngay gis kuy ñëw naan la waaw moom de kañ la dugg si jàkka kañ la dugg si jàkka <laughs> pourtant ñun vidéo yaa ngi fi foto yaa ngi fi donc xeexal ku nekk ci dëgg dafa neex xeexal ku nekk ci dëgg dafa neex donc nag dinañ xawma kande waye Macky Sall ak gouvernement am dinañ may jamm Serigne Moustapha Sy par force mu neex mu nakari mu nek par force wala ñu def ko à contre-cœur wala mu len di neex de toute façon bu len neexee ngeen dé la len wax de mais billahi wal quran azim Serigne Moustapha Sy di ngeen ko may jamm par A ou par B nak te kenn du ko sétane man ku touti la ci njabotu Serigne Moustapha ku touti la ci waye sama dignité ak sama ngor duma ko jaay. instant yi ku tuuti laa ci njabootu Serigne Moustapha Sy ñeme naa waat ni man maa gën a ñàkk solo ci ay njabootam waaye de wax dëgg yàlla nawuma kenn nawuma kenn ku naan dangay ngay woote kilifteef ak cëriñ te fekk na la ngay woote du dëgg donc ñun ci loolu lañu Serigne Moustapha yare maa ngi jégalu ci kàddu yi sama mbokk yi amul négocier nag dama ko moom laa bëgg a tëjee amul négocier nag on ne négocie pas avec personne xàmmewuñ ci kenn laa wax billaahi wal quraan azim sama waajur bu góor bi ma jur billaahi bu opposé wul Serigne Moustapha ma opposé ko alhamdulilah opposé wul Serigne Moustapha donc sant yàlla sama famille kenn opposé wul Serigne Moustapha donc sant yàlla bu baax a baax nag li ñuy xeex nag xeexuñu ko pour kenn man mii génnoon naa ba ñu ba ñu ba ñu ba ñu attaqué ba ñu attaqué euh, Ousmane Sonko ba ma koy def defuma ko woon pour Ousmane Sonko daf ma ko defoon pour Sénégal. te rëccuwuma ko ba léegi loolu ma génne woon ma def ko ngir senegal moo may génnewaat ma defaat ko ngir senegal ndax du ma seetaan nit def injustice ci réew mii nii waxuma laa koo xam ne nag dafa ma keral dafa ma keral pendant plus de vingt ans may nekk may keral ba fii donc kooku bu ma ko nekkalul si naaj bi kon damaa ñàkk fulla donc nag ñun nañu am fulla keneen ku dëgg ñor nag keneen ku dëgg ñor nag di nga ci wax te yàlla rek tax bañ a xool ay clivage yu fii laa bokk ak fee laa bokk mais ku dëgg ñorul nag bu la neexee nga noppi mais forcé wuñu kenn mu wax ku mënul wax ñi may woo ñi may woo nañ ko bàyyi ku dëgg neexul nag tëjal sa làmmin mais bis bu ci nit jugee naan day bind texte wala muy def vidéo naan day dal rek ki Serigne Moustapha Sy laa leen wax ni de dinañ génnee riposte bu toll mille fois que moom la mu génnee ku ñu dóor rek ku ñu dóor yar laa la bu yeboo nga aar ñu la yar ndax sa kaw la ñu jëm donc loolu laa amoon ci lu may wax ak lu ñuy kii joxe beneen yoon ba keneen waxaat incha allah ñu génnaat waxaat ndax ragaluñ ci dara wasalaamualeykum wa rahmatullah. jaajëfal nañ leen ci teewlu bi ngeen di teewlu RTV Dakar yow mi aboneegul aboneel ngeen commenté like suñuy vidéo